iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraata almustaqiim siraata alladiina ancamta calayhim gayri almagduubi calayhim wala ddaalliin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والسلامه على عبده والنبيه والرسوله محمد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى واختفى واستنى واسترصد برسله إلى يوم الدين وعلى عبده وخديم عبده مولانا الشيخ أحمد بامبا خادم خير المرسلين وعلى خطوتنا العظيم مام شيخ إبراهيم فال باب المريدين وعلى كافة مسائخنا المحسنين وبعد أيها الإخوة أيتها الأخوات في الله نحييكم جميعا بأحسن تهيات ونهنئكم بأكمل التهاني وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki kaarang bokki fédération daaira Touba Murit bu kaarang maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di leen gërëm maa ngi leen di sant di leen ndokkeel gannaaw buñ sante yàlla subhanahu wa taala moom mi nu may ñu jàpp bis bii di ko waaj mu dinu sàmm dinu aar ba nu ëgsi ci bis bi mu may nu nu taxawal ko ba ëgsi fii noo koy may mu dinu may ba nu eggale ko ci jàmm te lépp luñ ci yaakaar ci aw yiw yàlla na nu ci defal lu ko ëpp ñaan ko mu sàmmatinu mayatinu ban teewewaat ku déwén ak jàmm di julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa mi nga xam ni moom rekk la yàlla doxale digganteem ak jaam ñi nga xam ni xam-xam ak wilaayaaku may mayul benn jaam mu egg ci yàlla lu dul dafa jaar ci loxol muhammad rasulullah kon ñu ngi siyaare tey julli ci yonent boobu di ko ñaanalit yàlla dolli ko leer te taas ci barkeem di siyaare bu baax suñu kilifay diine yi nekk ci suñ kanam di jiital ci ñoom Cheikh Sidil Muxtar Mbakke hafizahullah moom mi nga xam ni mbooloo mi amal bis bi tariixa bi mu jiite ci lañu nekk kon ñu ngi koy ziyaar bu baax di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal itam yal na yàlla may ko mu yàgg ci kanam njaboot gi njaboot gi yàgg ci gannaawam ba nu bokk am ngërëmal seexul xadiim di nuyu njabootu sëriñ Tuubaa yépp nag di leen gërëm di leen sant di leen ndokkeel di nuyu bu baax itam xulafaa yi nga xam ni ñoo nekk ci kanam torox yi nekk ci biir réew mi di nuyu bu baax ki nga xam ni moo fi toogal alhaaji malik si radiallahu mu di al cheikh ahmad tidiane si al maktoum yal na yàlla yokk fanam dolli ak wéram di nuyu njabootu alxaaji Malick yépp di leen ziyaare bu baax a baax a baax di nuyu bu baax a baax mbooloo mi ko fi teewal te ki nga xam ni moo nekk ca bopp ba moo di sëñ Keba Ñang nga xam ni moo ànd ak daairatul muhsiniina wal muhsinaat ñu di leen gërëm bu baax di leen sant di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak mucc ak xiiwal yàlla na ko yàlla boole defal di nuyu bu baax mbooloo mi nga xam ni ñoo fi toogal seyxul islaam alhaaji ibrahima ñas ibnu ñas alkabir mbooloo mi ko fi teewal te jiite al ansaaru diin te ki nekk ci bopp bi ñu ànd ak moom mu di sëñ Ibrahima Niass fédération boobu nga xam ni moo di fédération daaira ansaaru diin bu seyxul islaam alhaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu wa ardana bi ridaihi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal itam kenn ku nekk kër ga ngay wute yàlla yàlla na la fa jox yàlla yàlla la fa yàlla jox yàlla ju doy sëkk nin koy wute rek mooy problème bi waaye kenn ku nekk kër ga nga sukk di fa wut yàlla yàlla ju doy sëkk nga fa kon ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziyaar ci teewaay bi ngeen teew fii ak taxawaay bi ñëw leen wuy si mbooloo mi waaye da ngeen a ñëw ci lu ngeen moom kon ñu ngi leen di gërëm daanaka jërul ngërëm li waaye nag du tee ko def lu rafet war nañ laa gërëm waaye seen bopp ngeen defal kuy defal sa bopp nag daanaka kenn waru laa gërëm ndax mbooloo mi di yoon wii di tariixa bii foo waay jóge rawatina kër Seyxul Islaam Euh, Cheikh Ibrahima ñas wala kër alxaaji Malick wala beneen tarixa bu mu doon bu ñëwee ci mbooloo mi moo ko moom kon ci seen mbooloo ngeen ñëw ci seeni taalib bi ngeen ñëw ci seeni xarit ngeen ñëw ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant parce que bu ngeen ñëwoon rek euh, def li ñuy tuddee alxudur dal di wëlbati ko dellu rafet na wante booba ba léegi te ku ne xam ne seen yitte ngeen bàyyi ko toog kon wane na ni mbir mi boole nañ leen ci waaye yéen wane ngeen ni bokku leen ci da ngeen a ñëw ci seen yëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di sant di leen ziyaare di leen ndokkeel di nuyu turax yu fi yi ci des yëpp turaxatu tariqatul xaadiriya tariqatul laahiniya jamaat al ibaadu rahmaaniya yëpp ak képp ku yëngu ci lislaam rek ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la ndokkeel di la ñaanal jàmm di nuyu bu baax nag ki nga xam ni mooy président wu fédération daayira Touba Murit bu Karang mu di ki nga xam ni moo di Serigne Yoro Mbay ñu ngi koy nuyu bu baax mook mbooleem dawaayir yi àndandoo tudd benn ittihaad mu di benn fédération ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziyaare ci jëf ju rafet jii ñu def nit fu mu nekk rekk na wone la mu doon ab jullit moom fu mu ne rek na ñépp xam ni jullit la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax di nuyu ki nga xam ni moo di présidente bi di soxna Marème Fall ñu ngi koy gërëm mook jigéen ñi mu àndal ñépp di leen nuyu di leen ziyaare di leen sant di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di nuyu bu baax a baax ki nga xam ni moo di sayid amdatul baladiya mu di meeru dëkk bi di sayid gomis ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm ci teewaayam di ko sant te it xale yi nee nañ jàppale na leen bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkeel di nuyu sëriñ fàllu Fall mu sëriñ Mbàkke Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax eh, di ko ziyaare di ko sant moo rakkam ji mu àndal sëriñ Xaadim ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare di leen sant di leen ndokkeel waa fédération daayira murit bu Touba Kaarang ma di leen indil yóbbante sëriñ Cheikh Mbacke Kebe bu sëñ Cheikh Sidil Muxtar Mbacke nee na coonoo ko jàpp bii maag moom noo bokk fanaan Tiwaawan ba cinq heures et mu door a départ jëm Touba ma door a dem Dakar pour wàccu ñëw fii waaye daf ma noon teew fii rek moo ko ñor waaye coono boobu rek moo ko jàpp waaye mu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziare bu baax a baax di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp yal na yàlla may nu nu dundati ba déwén ak jàmm di nuyu sëñ Mbay Njaay mii tabaarakallaahu moom itam di ko gërëm di ko sant di nuyu jàngkat ci xaside yi suñ ab laay Siise mi nga xam ni waxtu wu nekk mu ngi ma doon woo di ma soññi moom it ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di siyaar ñëpp di ndokkeel ñépp jërë ngeen jëf eh, li tax nu daje nag moo di danoo daje ngir di fàttalente di fàttalente li nu bokk danu bokk wala xadd karram naa nii aadama wa naa fil bar teraanga jooju nu yàlla defal te defalun ko lu tax mu defal nu ko dafa yore lu dul jeex yéene ko doomu aadama waaye du jëmmu doomu aadama rekk a tax mu jox ko ko waaye li tax mu jox nu jooju teraanga jël nu teg nu ci kaw lu mu bind xattal malaayika ba ci malaayika yi sax yàlla dafa jël nit teg ci seen kaw te bu doon ñàkkatooñ yàlla mooy tax yàlla di terle kon malaayika lay teral moom mi ko dul moy mukk waaye lu tax mu jël nit teg ci kaw moo di li ko gënal moom yàlla da koo yor forme da koo jox forme doomu aadama mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo jox bindu nit teral ga yàlla teral ca la yàlla jàll ba teralaale doomu aadama kon nun ñépp nan xam ni teraanga junu yàlla teral daraja yi muhammadu rasulullahi tax sallallahu alayhi wa sallam kon karaamatul insaan boobu war nan koo bàyyi xel ba bañ koo sàggane ba mujj ci la xadd xalaxnal insaan fi ahsani taqwimin nu bañ a egg na ci summa raddatnaahu asfala saafiliin waaye nu bokk ci groupe illa lazina amanu wa amilu salihat yàlla nee na la xadd xalaxnal insaana fi ahsani taqwim yàlla nee na bi ma bindee nit ba noppi dara luñ naan ak a ñaaw nekku ci gis nga waxtu woo déggee diwa ñaaw dafa fekk doomu aadama dugal na ci loxoom waaye liir bis bi mu juddoo ku ko tiim amoo looy wax lu dul liir bekk rafet heure bu ci nit dugalee loxoom nag la ca leneen di door a am kon fii ahsani taqwim nit moomu nag mooy góor góorlu ba tiim malaayika waaye mooy ñàkk fayda ba la gën a ñàkk fayda tiim ko moo tax muy mujj ci summa raddatnaahu asfala saafilina waaye yàlla nee na nag ila alladina amanu wa amilu saalihaat ñi gëm yàlla te muy dëgg ñuy jëf lu baax te di ko wax ñoom kaw rek la ñuy jëm waaye duñ dellu gannaaw mukk yàlla moomu kon boole nu karamatul insaan yonent bi jàngale na ko ci boor bu ne nit ki ko gënoon a bañ nga xam ni lu mu mën a am li mu gën a bëgg dégg nga xëy bu ko déggee bég na mbég ci mu mës ta bég moo di bis bu déggal ñu ni Muhammad faatu na nee na keroog bég na mbég ci moo xam ni mësu koo bég bu ko aman waaye yàlla dogal na amu ko moo jëkk faatu Muhammad waaye kooku keroog bi mu faatoo ñu di ko suuli ñëw romb yonent bi alayhi salaam saxaaba yi wër ko yonent bi dañuy ñokket taxaw ni saxaaba yi jóg leen taxaw ñépp jóg taxaw takriman lahu ngir di ko màggal am ci saxaaba yi ku ko ni xanaa xamoo kii ki la gën a bañ ci àdduna moo faatu nga jóg di ko màggal di ñu ko digalaale loo jublu ci loolu yonent bi ni ko gees ni ko alaysa basarun xanaa du mbindeefum doomu aadama mu ni ko aha mu ni ko yàlla di naan wala xadd karram naa waxul woon jullit waxul woon yahud waxul woon siif waxul woon chrétien dañi bani aadama te kii ci doomu aadama yi la bokk xoolal ni mu wuuteeg moom yonent boobu yàlla boole nag moom bind nag téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent jël ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett boo demee ci tasawudu sixaar sëriñ Tuubaa ngi wax naan amma jamiul anbiyaai wa rusul fa xakkadun min al ulufi yaa rajul gis nga faa bokkul ci calcul bi moo tax di nga gis mu def ci ñaari rëdd di la wan ni bul calculer faan bi faa bi amma ba ca kanam jawaabam ci grammaire toujours faa nga fay def moo tax mu ni amma sartu jawaabam mooy fa mu rëdd benn rëdd ni la bu ko calculaale calculal xaaf ak kaaf ak daal mu ni xakka dun xaaf téeméer la kaaf ñaar fukk la deel ñeent la mu ni la minal uluufi andil na la calcul ci araf andil na la calcul ci siifar mu ni la minal uluufi yaarajul téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent la yàlla bind ci ay yonent waaye ñetti téeméeri yonent ak fukk ak ñett la yàlla bind yónni leen ni leen dem leen ni nit ñi nangam sëriñ Tuuba boo demee ci tasawudul sixaar ba tey muy wax ni wa adadu rusuli jiimun summa yaa un baadahuma muhmala siinin fahiya nee na wa adadu rusuli li ñi yàlla yónni nee na jiimun da bind jiim summa yaa un nga bind yaa baadahuma nga def ci seen gannaaw siinun muhmal mooy siin bu amul ñetti tomb mu ni la fayya moytu ko tomb ñetti tomb kon mille lay doon te trois cent rek lay wax mu ni kon trois cent treize ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy jëy sun ñooñu la yàlla yónni ci ay yónninti ñu ñëw ci ko suuf saña wax waaye haa un rek eh, maanaam ñaar fukk ak juróom ñoom rek la yàlla yebal ci kaw suuf yónni leen indi seeni tur ci alxuraanul karim ñooñoo ngi tàmbalee ci sayiduna aadama jeexe ci sayiduna muhammadu rasulullah waaye ñaar fukk ak juróom yooyu itam juróom rekk la yàlla teg ci kaw nit ñépp ni li ma bind yépp cinq yi ñoo ci gën moo di yonent yàlla nuux yonent yàlla muusa yonent yàlla isa yonent yàlla ibrahim sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu lañ tudde ulul asmi min ar-rusul juróom yooyu nag la yàlla yëkkati kenn ci ñoom yëkkati ko ba mu taxaw yàlla téye ko ci loxoom mu tiim ñépp ni li ma bind ñépp kee ma ci gënal ku bëgg ma bëgg la bëgg ko ku bëgg ma duma la bañ ko kooka mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cheikh ahmad bamba di ko xool ba yàgg mu ni raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru cheikhul xadim nee na raama bu fekkee daa bëgg a am alwara bindeef yi nayla fadlin ngëneeli tey ak ëllëg Cheikh Ahmad Bamba nee na nii ko seet doo ko fa fekk lu dul da dem ci néeg Muhammadu Rasulullah wal fadlu ngëneel yëpp xaraaru mi ngi ñu denc inda rasulillahi fi na taggkat yi ñéppay yi ndax nag xul in kuntum tuhibbuuna allaha nii fattabiuni yuhbibkumullah yàlla nee na bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen muhammad te topp ko su ngeen bañee ma bañ leen bañ leen su ngeen bëggee ma bañ leen bañ leen muhammad te bañ koo topp kon ku bëgg muhammad te topp muhammad loo bëgg ci yàlla danga ko am ko ko won gannaaw loo bëgg ci yàlla doo ko am Cheikh Ahmad Bamba nag nee na kere bi nga xamee ni yàlla jox na ndigal malaayika yi ni leen sujjóot leen ci maam aadama malaayika yépp sujjóot iblis bañ moo tax kiñaan baaxul iblis li tax mu dem sawara te kum mën a yóbbu yóbbu la ca yàlla dafa mas wax ni dinaa mas a joxe ndigal waaye yéen ñii dana am ku ci bañ waaye su boobaa dinaa ko defeere nangu dara jaam yóbbu ko sawara bi yàlla joxe ndigal loolu mu ni xaaral ma xool kudul sujjóot ma boole ko iñaane kooka dem sawara tax mu ni sàtt di xool ba xam ku sujjóotut ñépp sujjóot moom rek mu taxaw sama borom ni ko sujjóotal mu ni ko ci kii mu ne ah, mu ni ko xalaatuma ko sax kii maa ko gën téeméeri yoon ndax man yaa ngi bëggoon ko ni ma bind ci leer fas ko ni man yaa ngi ma bind ci sawara kii nag nga bind ko ci suuf waaye Serigne Touba nee na malaayka yi bi ñuy sujjóot sujjóotuñu ci jëmmi maam Adama waaye booba leer Muhammad la yàlla roof ci maam Adama leer googee la yàlla doon sujjóotloo malaayka yi ci maam aadama moo tax boo demee ci miim ya Cheikh Ahmad Bamba day wax ni li nuurihi sajadat amlaaku mursilihi lil jaddi aadama nuuran fiihi munkatima nee na li noori nee na sajada sujjoot na amlaaku mursilihi malaayka yi yàlla yi nga xam ni moo yónni muhammad li noorihi ngir leerug muhammad lil jaddi aadama ca maamam dañuy wax aadama ndax nooran leerug njol makka ga fiihi mi ngi ci ndiggul maam aadama mun katimaa ñu denc ko ca biir leer googee la malaayika doon sujjóot kon teraanga yi sujjóot ga sayduna muhammad sallallahu alayhi wa la Cheikh Ahmad Bamba boo demee ci am amda nee na ñi xam njool makka ci bi mu ganee jamono ci makkatal mukarram muy juróomi téeméeri at ak juróom-ñaar fukki at mooy ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam gane jamono sëriñ Tuubaa nee na ñi ko xam jamono jooju góorgóorlu di ko góor góorgóorlu même geesu rek bu ko defee bind nañ ko sëgg rek bu ko defee bind nañ ko nelaw bind nañ ko nu doon noyee bind nañ ko xare bu mu def bind nañ ko ku tuub ci moom bind nañ ko wax ju rafet lépp bindkat yi bind nañ ko ci Seydina Muhammad ngir di ko jàngal nit ñi waaye sëñ Touba nee na ñi xam Muhammad 570 di ko topp ba 632 parce que 632 la génn jamono sëriñ Touba nee na ñooñu jàmbaar lañu foor nañu ndax bëgg Muhammad képp fi la njàmbaar yam akuk baax waxuma laa nag sa dund gépp nga jeexal ko ci tagg ko waaye nee na ñi ko xam dat boobu. nee na ñooñu bi ñu xamee njol màkk dafa yàggut ñu ni ko 570 mu ni loolu bërki démb la ñu ni ko yow kañ nga ko xam kon mu ni man maa ngi xam Muhammad bi ko yàlla bin bi yàlla bindee maam Aadama def ko mu nekk benn haykal képp amul ruu amul dara mu tëral ko ci bunt aljanna amul ruu amul dara sëñ Bamba nee na boobee fekk na ma xam Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ma naan ko la anta alladi utiita xitman nubuwatan booba wa aadamu baynal maa i wattini yan jëli nee na la anta yow njol makka alladi yaay koo xam ni utiita jox nañ la xitman bu yàgga yàgga yàgga yàgg nubuwatan sëg yóninti booba wa aadamu maam aadama mii ñu deeni moo fi mag baynal maa i mi ngi ci diggante ndox waf tiini ak ban amagul ak ruu doonagul mbindeef fekk na yow ngay jëmm ju amug leer yor nu boowa tudd muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naa ko nubuwatuhu xablal baraaya xat jalat nee na nubuwatuhu nubuwat ak njol makka ga xablal xat jin jalat feeñ na xablal balaa yàlla yàlla di bind kenn kenn kenn kenn kon nubuwatuhu xablal balaa yaa xaddin jalat sëriñ Tuubaa nee na njol màkka lahu sabqu njol màkk jël na première yi première yi hiinal jaddu jamono ja nga xamee ni maamam dañuy wax maam aadama fittiini mi ngi ñu denc yuxsanu ci ban fekk na seyduna muhammadu rasulullahi di sangum ñépp noonu la topp Seydina Muhammad naa ko la in jaa bil ayaati rusulun taxaddamu wallahi fanaalu bikal ayaati min si tafadduli nee ko la in jaa bu ëndee bil ayaati ay kéemtaan rusulun yonent yi taxaddamoo yëla jiitu wallahi fanaalu bum la naqari buñ la naan Moussa foor bum la naqari buñ la naan Daouda foor bum la naqari buñ la naan Isa for bu mu la naqari ci sa daraja lañ sukkandiku ba am lañu am te yow sukkandiku woo ci kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala la in jaa bu ëndee bil aayaati ay kéemtaan rusulun yonent ya nga xam ni te <clears throat> xaddamoo ñoo la jiitu wallaay fanaaloo ñu ngi amee bi kat ci yow njol makka te yow njol makka nag min sii tafadduli li nga am lépp yaa ko jëli ci yàlla subhanahu wa taala yow yàlla képpay sa kilifa kudul yàlla yow njol makka yaay kilifaam sallallahu alayhi wa sallam noona la ko toppee waaw ma maa ngi ñaan ñi ñii ñi eh, ñu am rek ñu yor ay mbaxana di fekk nit ñi fi ñu toog lu ñu leen dox ñu indi pour ñu bañ a déplacé wu waxtaan wi di am problème waaw na ngeen di fekk nit ñi fi ñu toog rek lu waaye di joxe ngir jëm yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa rek ñu joxe ku ñu indi bu ko defee ñu man def waxtaan yi eh, mu bañ am benn problème noonu la ko toppee naa ko lakkal fadlu sëñ Bamba nee na ngëneel ci loxol rasulullahi rek la nekk yaa muxtaaru nee na ku ñu tànn amoo benn défaut sëñ Bamba nee na ci njol makk rek la ne nee na ku dul njol makka buñ la vérifié bu baax gis ci yow looy tuubal yàlla nee na njol makka képp mooy koo xam ni bu ne astaghfirullah da koo def cib xan li xawlillahi fi alquran ci istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi waaye tooñ yàlla taxul mu def ko yaa sayyidal wara nee na ko yow mi nga xam ne yaay sangum ñépp nag wallahi alayka yàlla nekk ci yow salaamullahi mucc yàlla ga yaa man yow ma nga xam ni lullaa toroxte ji nar na dal nit ñëpp mahaa yaa ko far ci képp koo xam ne nangul na la ni la yàlla def subhaanahu wa taala noonu la ko toppee naa ko la anta imaamu rusli xad jaa annahum talaa xawka fil isra'i wal kullu xad salla nee na ko yow la anta yow njol makka imaamu rusli yaay ilimaani yonent yëpp yëpp yëpp kañ la anta imaamu rusli te lii may wax nag xat a ñëw na ni annahum naka ñoom yonent yëpp talaa xaw daje nañoo ak yow fil isra yi ca keroog guddi ñaar fukk juróom-ñaar di bisub ñaar fukk juróom-benn ci weeru rajab daje nañoo ak yow ca baytil muxaddas ñoom ñëpp yàlla dekkal leen ku ne jóg sangu salu tuuro parfum rang taxaw sëgg kenn ñi mewut a siggi nga jekk bi ak nga ni tëpp ci seen biir wàcce ci alburaax ñoom ñëpp ñu tàllal say loxo naanu naa leen ñaanal nu nga ñaanal leen ñoom ñëpp ba nga leen ñaanalee ba noppi nag ba nga jógee fa nga jëm benn yónent ci xamu ko moo tax sëñ Bàmba ni nag fa xaaba anhum wartaqa yónent bi daal di dem nag kenn xamul fan la jëm kon talaa xaw ka fil waaye wal kullu ñoom ñëpp nag xat salla julli nañu ci sa gannaaw yow njol màkk ngay seen ilimaan sallallahu alayhi wa noonu la toppe njol màkk naa ko maqaamaatu xayrul xalqi an xayri rabbihi muxayabatun faltaqra an suurata najmi faltaqra an faltaqran rek la an bi bokku ci faltaqra an suurata Ah, boo dee jàng araf nag ñu tanwiin ko ci fata dafay mel ni jàngale nga alif waaye maqaamaatu xayrul xalqi moo tax néewul maqaamatu kon benn rek lay doon dañuy maqaamaatu xayrul xalqi mu xayyabatun waaye an xayri rabbihi nee na boo ko werantee fal te xaraan suurata nag mi demal nga jàng suuratu nag mi rek di nga fekk lii may wax loo cay fekk wa najmi isa hawa maa dalla saahibukum wa maa gawa wa maa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha yàlla nee na muhammad rek laa wax ni ko wan naj ni maa ngi giñ ci biddiw waxin la rek nde yàlla day wax lu tolloog nit ñi waaye biddiw biñ nit ci lay giñ moo ko bind kon moo ëpp doole fuuf biddiw mais day wan nit rek nu ñu war a def wa naj mi isaa hawa maa dalla saahibukum wa maa gawa yonent yàlla nee na yéen jullit ñi seenu ngóor ngóorgóorlu rekk ci des waaye am ngeen njiit lu am ngeen njiit lu béwut Muhammad réerut fi mu aw xam na ko Muhammad béwut tëppul bakkanam kon fu mu jaar jaar leen fa maa dalla saahibukum wa maa rawaa waaye li gën a jafe léegi moom la njol makka aman moo di wa maa yantiqu anil hawa mës sa waxe bànnee xam mukk mbooloo mu bari wër ko addiya yu bari wër ko njaboot gu bari wër ko mësta tax mu waxal boppam bànnee xam lu mu mas a wax rek yàlla ko ko wax loo wa maa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha keroog bi ñu ñëwee njaareem fekk fa sëriñ Touba ni ko waaw njol màkka ban bàkkaar la def ba yàlla naa ko baal naa la sa bàkkaar yu jëkk yu mujj sëriñ Touba dañu bërit dugg ci néeg ba tëj ko tëj ko ab diir ni tëll génn ni ko waxan baat boobu na ko tuub ku ko dégg nit na ko tuub ñu ni ko lu tax mun leen njol makka kenn du ko tudd di tudd bàkkaar mu ñu ni ko mais alxuraan moo wax ni inna fatahna laka fathan mubinan li yaxfir allahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma taaqar alxuraan a ko wax alxuraan moo ne njol màkka baal naa la sa bàkkaar bu jëkk ak sa bàkkaar bu mujj kon sañ nañ ko parce que alxuraan du wax lu amut mu ne waaw nee leen noo ngi tuub ba noppi rek ña ko waxal ni noo ngi tuub mu ne ku ko déggal na ni maa ngi tuub ñu ni maa ngi tuub mu ne man mii maa ngi tuub ci dégg gi ma ko dégg ñu ne ko kon lu tax alxuraan wax loolu mu ni leen alxuraan looloo tax mu jafe mata teey ndax ni muy bindee léeg-léeg dooni tekkee ndax boo tekkee noonu da nga ni muhammad am na bakkaar te muhammad amul bakkaar ñu ne ko lu tax yàlla wax ko nag mun leen bàkkaar fan lay jóge ñu ni ko bàkkaar dañ koy wax mu ni walla mu ni walla ñu jëf ko mu leen njool màkka nag yàlla moo ni lu mu def maa ko ni defal lu wax maa ko ni waxal kon nu mën a amee bàkkaar ñu ni tekk ni ah, foofu nag mat naa seet waaye ñun suñ xam-xam yëggu fa kon lu tax yàlla wax ko sëñ Tuubaa waaw kay yàlla du juum danoon lu ngeen xamut laaj leen ko ñi ngeen deen ñoo ko xam fas ala ahla sikri in kuntum la taalamuuna ñu ni ko kon lu tax yàlla wax ko mun leen maa tax xaddama bàkkaar bu njëkk bi ko yàllay wax mooy maamam yëg ko jiitu te julti ñu ko fee fekk bay doon jullit waaye deretam jaar na ci ñoom yàlla nee na baal na leen ngir darajey rasulullah sallallahu alayhi wa ñu ne ko wamaata akal bàkkaaram bu jëkk mu leen jullit ñi ñëw gannaawam nangul ko nangul ni ko yàlla def waaye léeg-léeg ñu def njuumte waaye bëgg nañ Muhammad ànd ak moom yàlla nee na lañuy ñuy juum baal na leen ko ngir dara darajey Muhammadu rasulullahi mii ñu topp kon maata xaddama maamam yu jëkk ya wa ak axara jullit ñi ñëw gannaawam waaye jëmmi rasulullahi sëñ Bamba nee na du def bakkaar kon nag maqaamaatu xayrul xalqi an xayri rabbihi muxayabatun faltaqar an suurata najmi mu delluwaat gannaaw baamtuwaat wayu mais beneen façon mu waxaat ñu maqaamuka bële day wax ku mu gisul bii day wax ak ku mu jàkkaar lool ni ko maqaamuka an ahlil maqaamaati gaaibun waaye boo ko weddee wa fil fathi maa yëg fii wa fi suurati najmi nee na ko maqaamu ko sa daraja yow njol makka an ahlil maqaamaati fa borom daraja ya yonent ya tax muy wax ñu ne ko amu ni xaaibun réer na leen ñoom ñëpp kenn xamu ko ci sëñ Tuubaa ni bul werante boo bëggee xam li ma la wax wa fil fathi demal jàng suuratul fathi wa fii suurati mi wala nga jàng suuratul mi looy fekk ci suuratul fathi mu fatahna lakka fathan mubiinan liyaghfira allahu lakka ma taqaddama min sanbika wa mat ma taaxar yàlla nee na njool makka sa bakkaar yu jëkk bal naa la ko mooy ni ma ko tekkee sëñ bamba noonu la ko tekkee yu mujj baal naa la ko te itam xiiwal dootoo ko jeexal xiiwal bu ko yàlla di wax am xaalis adduna ak fan wu gudd taxut xiiwal fu yàlla waxee mi ngi ci jublu bu sagru rotee nga tabbi aljanna loolu mooy nicmatul ilahiya yàlla nee na may na ko njol makka sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon jàngal suratul fati nga jàng ko loolu nga ciy fekk boo demee mun la wa fii surati najmi nga fekk ci wa najmi iza hawa ma dalla saahibukum wa ma gawa wa ma yantixu anil hawa in huwa ila wahyun yuha sëñ Bàmba nee na yii ñaari daraja ku dul rasulullahi amu ko gis nga lu iblis def ba dem sawara moom la maam aadama def ba pare dem àjjana moo tax yàlla rekk a sew iblis yàlla da ko ni sujjootal ci aadama mu bañ dem sawara maam aadama yàlla ni ko bul laal garab gii mu laal ko kon dañ ni iblis defal mu bañ ñu ni aadama bul def mu bañ def mais lu tax iblis dem sawara ba pare aadama dem aljanna mooy iblis dafa tooñ ba pare nanguwul ni moo tooñ yàlla sant na ko ba tey dem na bani ko demal fañ suul aadama nga nga sujjootal ko rek ma baal la iblis ni ko naka lay bañ a sujjootale kuy dund ñàkkalaat sama bopp fayda ba fekk ku dee bañ suul ko mu di ko sujjootal maa bañ yàlla jéem na ko dimbali ba tàyyi mu bañ moo tax dëgër bopp baaxul xool ngëneel ci sa boppit baaxul aadama dafa tooñ bu laal garab gi mu laal sama borom ni malaaka yi yuuxu leen ko mu génn aadama boo demee ci eh, nus atan nadim donte ni am nañu jam téere boobu parce que dañ ne ay israiliyaat la am nañu ko wax mais aadama nett li na fa nee na bi loxoom ne laal benn pom ci pom boobu nekk parce que tufaaxa nee nañ moom la nee na bi mu ko nee laal rek yére yi mu soloon lépp dafa lakk mu def yaramu neen xawaay yére yi mu soloon yépp lakk ñu def awray neen ñoom ñaar ci biir àjjana mais ñoom ñaar képp fa nekk si jëkkër ak jabar la kooku amul muskila waaye problème bi mooy lu tax seen yére lakk ndekke bàkkaar bu rëy bi ñu def tooñ gi ñu tooñ yàlla moom la seen yére ragal ba ñeme koo ko supporté ba jeex ngir tiit ci bàkkaar boobu mbokk yi nañu góorgóorlu ci ragal bàkkaar bàkkaar kenn waru ko ñemee lu dal nit rek bàkkaar a ko teg waaye yàlla ni malaaka yi yuuxu leen ko ñu yuuxu ko rek mu génn ndeysaan taxaw ci buntu aljana keroog la jëkk yëg ngelaw lu tàng lii muy yëg yaram wépp sotti ko yaram yi dafa nooyan ratax xes pej mais trente secondes amu ko ci biti yaram wi mel ni xeer ndax ngelaw li mu xamutu woon waaye ndeysaan bi mu taxawee rek yàlla bu la bëggee dimbali rek dimbali la aadama xam ni def na erreur waaye sama borom dal koy won aras mu gis ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadun rasulullah maam Adama ni yàlla ak ni mu bañ bokkaale turam wii mu taf ci aw tur turam wii day ma kana mais kii xam naa ni yàlla yëg na ko yëg gu toll ni bu ma jéggloo ci darajaam yàlla baal ma waaye sama borom ni ko képp ku tooñ tey jégglu da wax ni maa tooñ ba pare door a balaw Adama ni gur fukk janoog suñu borom naa ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirina gis nga néew ko rabbi inni salamtu anfusi fa in lam taxfir lii wa tarhamni la akunanna min alxaasirina ci nahwiyan maanaam ci grammaire noonu nga war a wax waaye lu tax mu ni rabbana yow sunu borom inna naa nun zalam naa tooñ nanu anfusanaa sun bopp wa in lam taxfir lanaa boonu baalut wa tarham naa te yërëmoonu la nakkunan na kon fokk nu bokk ci ñi nga xam ni minal xaasiriina dañuy perte lu tax mu jamu ko te moom rek moo def ulama yëpp nee nañ bi aadamay tooñ tooñ gu réy googu fekk na doomu aadama yëpp ngi rancé wu ci ndiggam kon doomu aadama ci tooñ lañ ko bindee aadama yi yëg ni bi muy tooñ mu ngi ëmbaale sëtam yépp comme am na occasion nag du tuubal boppam jéggulul boppam bàyyi ay sëtam loolu tax muy jéggul boppam jéggulaale ay sëtam mais day wax rek yàlla ni tekk di ko déglu rek ba yàgg mu ne ko bi xaqi man xaaranta ismaka wa ismahu muhammad rasulun mink tax istaxfartu anka yow yàlla ci daraje kii nga lëkkali sa tur ak turam te mu tudd muhammad di ndaw loo xam ni ci yow lay bàyyeekoo maa ngi ñaan nga jéggal ma ci darajey kooku sama borom ni ko kayfa arafta muhammad wala mu axluq baadu mais yow noo xam ne muhammad te bindaguma ko mu ne ko damaa gis nga taf ko ci sa tur te man ma xam ni nga bañ a bokkaale koo taf sa tur rek xam naa ni koo bëgg la yàlla ni ko tey nga xam ne maa ko bëgg du ma yem ci baal la dama la yóbbu àdduna ngay jur ñooñu di jur ñooñu di jur ñooñu di jur ngeen di ma tooñ di ma tooñ ba bàkkaar bay laal asamaan ndax bari ngeen tudd turu kooka ma baal leen ñépp ngeen xam ne maa bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naan walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uka gis nga ko amul mës-mësal mu ne nëbb mu ko jox kenn walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uka wastaxfarullaha wastaxfara lahumu rasulu su boobaa la wajadullaha tawaban rahima moo tax jullit lu bakkaaram rëy rëy rëy bu jéggaloo ci darajey Muhammad rek yàlla baal ko ndem du ca delluwaat yonent boobu nag nekk ak nun jóge Makka gàddaaya fa ñëw Madinatul Munawara 570 la feeñ 610 lañ ko yónni 621 la ñaan 622 la gàddaaya Makka ñëw Madinatul Munawara toog fa 621 22 23 24 juboowul ak waa Makka dara taxul nag lu dul dafa ñëw bàyyi leen ak la ñu bëgg gëm mu baleen ca moom li ko yàlla yónni mu di ko woote ñu ni ko du fi amee lii rek la yónnent mëstatoon ci àdduna moo tax xeex boo dégg ci lislaam hujjuum la yónnent bi def mooy xaam waaye hujjoom yonenti mësu ko def mësul attaqué riposte rek lay def waaye amul benn xare ci àdduna boo xam ne yonenti ko sangu amul ba 624 mu def première guerre bi njëkk am mooy xare Badar 313 ñetti téeméeri fukk ak ñett la am ci ay militaire yéefar yi junneeg nangam ñu dajaloo waxtaan yonent bi xool jullit ñi ne nun de bu nu xeexee ndax waa Medina gi ñoo ëpp ci militeer yi te xamuñu xeex waa Makka gi xam xeex bëriwuñu ñu toog di wax di wax di wax di wax di wax ba yàgg rek moo tax sëñ Bamba di wax naan wa baadama saawaru jaau bi rayihimu wa xaala wa saaduhum xaala xawlan xat nafal wahama ba ñu waxtaanee diisoo ba waxtaan ba d'accord waaye xamal ne xat saawara sahba xayrul xalqi takrumatan wa baada iiru abi sufiyaana xat daxima yonent bi bi mu diisoo ak ñoom ba noppi sëñ Tuubaa nee na diisoo ga nag du ñàkk xam la muy def dafa fonk ñi mu àndal ba du jël décision saa mu wax leen ko mais avant muy jël décision da leen di laaj lu ngeen ci xam kenn nangam mu ni lu ngeen ci xam kenn nangam mu ni kenn loo ci xam ñu ni nangam bu ñëpp dajaloo nag mu jël décision boppam da koo defan takrumatan ngir caral leen waaye du di leen laaj loo xam ni xamu ko bi mu demee nag bay xalaat militaire yu néew yi di laaj waa Médina luñ ci xam ku ñu wax saadum nu Muaas bokkul ak saadum nu Abi Waqaas saadum nu Muaas waa lan saar la saadum nu Abi Waqaas waa muhajirun ya Sabdu ibnu Muas mi moo ni yonent bi moo ni ñokkat ni Muhammad ka annaka turiduna yow dafa mel ni da nga bëgg nu ànd ak yow mu ni ko naam mu ni ko wallaahi danan ànd ak yow bu dee jotee nu dee boo duggan ci géej di xuus danañ xuus ànd ak yow ba génn ca biti wala nu lab ca ndox ma waaye duñu teqali ko yow mukk moo tax sëñ Bàmba ni wa baadama saawaroo gannaaw ba ñu diisoo ba noppi jaa oo andi nañu bi ra'yihimoo kenn ku nekk xalaatam waaye wax wa saaduhum saaduhum waa lan saar xaala moo wax keroog xawlan wax joo xam ni xat na faa moo dindi waxamaa sikki sàkk bi yonent bi doon sikki sàkk ci waa lan xare boobu dal di taxaw 313 cent mille jàkkaalook quelque une heure de temps képp lañu xeex képp jullit ñi jàpp juróom-benn fukk euh, jullit ñi jàpp juróom-ñaar fukk rey juróom-ñaar fukk muy téeméer ak ñeent fukk jullit ñi seen sàppe fukk ak ñeent dee ci Seydina Muhammad taxaw rangoñ gi sottiku yàlla ni ko lumu mu ni ko kële nangam la ci man deena diw mee nangam la ci man deena wax ba yeggal mu ni ko ñaata lañ la reyal mu ni ko fukk ak ñeent mu ni ko ñaata ngeen jàpp ci yéefar yi mu ni ko juróom-ñaar fukk mu ni ko ñaata ngeen rey mu ni ko juróom-ñaar fukk mu ni ko muy ñaata mu ni ko téeméer ak ñeent fukk mu ni ko mu ni ko téeméer ak ñeent fukk nga yeew bokki jàmbur rey bokki jàmbur te ñoom ku ca dee day dem sawara te yow ñi nga am ku ci dee day dem ajjana ngay métit lu fukk ak ñeent bàyyi juróom-ñaar fukk yële ak juróom-benn fukk yële xamal li ngay def yonent bi rangoñ gi jooyan ngir lu ko naqari rangoñ nga jooyaat ngir tiit gu mu tiit digganteem ak boromam subhaanahu wa taala kookoy Seydina Muhammad Seydina Abu Bakar bokk ca xeex ba Seydina Omar bokk ca xeex ba Seydina Ousmane bokk ca xeex ba Seydina Aliyun bokk ca xeex ba foofu ma wax nag problème a ngi fi bi ma nee naa Ousmane bokk ca xeex ba ulamaawu taarix yépp ànd nañ ci ni Ousmane demul Badar sëñ Touba képp moo bind ni Ousmane dem na Badar waaye ulamaaw yépp jàngkat yépp nañ ma déglu tout ñépp a bokk d'accord ci Ousmane fekkiwul Badar waaye lu tax am nañ dëgg nag parce que Ousmane bi ñuy woote Badar yonent bi dañi ku fekke Badar waxuma yow ma ko fekk mais ku la bëgg du dem soora yàlla roof feebar roqee mi soxna euh, Ousmane ñu war a génn di dem Badar soxna si daanu feebar te yonent bi diggee li Badar yonent bi daldi ni Ousmane yow bul dem toogal nga ragal sa soxna parce que soxna dafa foor soxna du feebar nga wàcc ko fa di dem xare toogal Ousmane bëggul a toog di di ñàkk yoon bëre waaye itam bëggul a dem di wet di ndigalul njool mag mu toog ñu génn rekk Ousmane tàllal yàlla loxo déglu leen waaye déglu tuuti rek dañu génn tuuti rekk Ousmane tàllal yàlla loxo moo tax yàlla rek kay buur wa isa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun gis nga looy xeeb ak naa munta am bu mu doon ñu ni yàllaa ko def luñ ni yàllaa ko def moom bul neeti mënta am amul moo ko wax moo ni man lu ma bëgg rek def ko ni ma ko bëggee Ousmane tàllal yàlla loxo ni ko yaar yaar yii de laa bëgg mu ne ko ban ak ban mu ne ko damaa bëgg a fekke ba dara mu ne ko waaw mu ne ko te bëggumaa génn néeg bi di weddi ndigalul njool mag mbokk yi lii koo wax ku yàlla di nga effect dama bëgg a dem ca Badar ak ni mu sore Médine ñi dem makk xam nañ ko te bëggumaa génn néeg yi parce que bu ma génnee néeg bi wet di njol Makka te bu ma demul Badar yool ba njol Makka wax duma ma ca am bëgg na maa fekke Badar bëgg na maa des ci néeg yi tiim soxna Roqaya yow rek laa ko diis nag ah sëñ Bàmba ne na foofa nag lañ ma waxee teewaayu Ousmane Badar nee na yàlla dafa dog xolub usmaan yóbbu ko ci badar am ay nit yu ko gis badar ba pare mu nekk ci néeg bañ jógee badar ñëw fekk ko ci néeg bi mu toog sëñ bi ni isxal bu usmaana fiihim kal xusaati maan amma sulaasatu fal ishaaru man bahama nee na is ngir xal bu usmaana moom la yàlla dog fiihim ca biir saaba ya kal xusaati mu mel ni xarekat ya maan ñoom ñépp mu ni am amma sulaasatu bu dee ñetti ñi nag fal ishaaru seenu feeñ babar maan ba amma xale yu ndaw sax xam nañ ko mooy Aboubacar Omar ali ibnu abi talibin radiallahu anhum seydina aboubacar sëñ tuubaa nee na ci biir géewu xare bi lañ ko séen mooy xare-xare bu metti mu naan wa fiihi mul muhaqiqu sayiduna al muwaffaqu asdaqu man xat saddaqu bil aasimiyil alami nee na ma geesu seen seydina omar ma ne wa fiihi mul mubassaru bi kulli xayrin omaru sayiduna al mutamaru isatu kulli muslimi geesu seen seydina ousmane mu ne wa fiihi moom man nakaha bintay raisan sulaha نورين هنا أفلها بالعاصم العالم جاسس سيدنا علي من وفيهم المكرم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الإداء سمسم نتني ñépp leen gis Ousmane nag moom mbirum baatin la yàlla koy xamal ku ko neex xare bu metti boobu xare bu dëgër boobu yonent bi am victoire jóge ca xare ba jullit ñi tàccu ñu dugg biir Medina ñu yuuxoo roqee doomam bég ci xare ba bay ñëw dugg ci biir dëkk bi sa doom faatu ña doon yuuxu dal soppeeku ay jooy ma tax sëñ Tuubaa nee na ku ci àdduna cuqutaan bul xàqtaay teg na karawaas boo xam ni fas na la ko yéenee duma loo reetaanan di nga jooy lu ko ëpp moo tax bu la cuqutaanee rek bul xaqtaay tutxikuka al yawma wa tabkiika xadaa tasurru taaratan wa tasuu sarmada nee na tutxikuka al yawma reetaan loo na la tey ñu ne ko waaw mu ne waaye tubkiika xadaa ma ngi lay jooyloo ëllëg jooy yu te tasurru taaratan dégloo na la ay minute nga ne waaw mu ne wa tasuu sarmada dina la teg aw naqar lu yàgg yàgg yàgg moo tax àdduna lu la ci lu la ciy bëgg a xàqtaayloo rek noppil yónent bi dafa gañ a xare bu mel noonu ñibbi si ñëppi xàqtaay ak tàccu ñu ni yulub ci dëkk bi rek ñu yuuxoo doomam ña doon jooy ngir xàqtaay arrêté jooy eh, reetaan ya soppi ko ay jooy ndax doomi rasulullahi faatuma sallallahu alayhi wa moo tax yàlla ni duma boole ñaari mbégte ci benn xol mukk ci àdduna yónent bi génn àdduna 632 dernier aj gi mu mujj aj dem Makka aj ba aj ga jeex lii ñuy def nii at moomee la ko yonent bi annoncé tant yeeg gàmmo yeeg cant yeeg màggal yeeg rajo yeeg surno yeeg télévision yeeg internet yeeg yépp kere la ko njol Makka annoncé parce que dafa taxaw ba muy bëgg a tàmbali discours am mu ni fal yu balliru assaidu alxaaiba ñaari baat la tënk mooy yi ma leen wax yëpp képp ku fekke lii may wax nang ko jottali ku ko fekkewut saxaaba ya ko teewe woon ñii ngi dëkk Afrique ñii dëkk Asie ñii dëkk Australie ñii dëkk continent Amérique boobu amagut waaye saaba bu ñibbi rek ni yonent bi sa waa yonent bi nee na nangam ñu di ko jottali ban nan ko bind fii ba mag ñi bind ko ci téere yi ci lañuy dem di dem ba yàlla soppi jamonoom indi rajo ngay toog ci rajo bi naan njol makka noon na nangam ca Arafat ñuy dem ba yàgg ñu indi télévision nga ni ko jàkk ni eh, waa ji toog nga di ko sën mi ni njol makka nee na ci téere bii nga seen tur téere ba ñuy dem ba yàgg ñu indi internet nga xay ba ko yonent bi wax moo tax nit ñi dañuy yéemu ci loo xam ne ku jàng diine doo ci yéemu parce que day fekk yonent wax ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg jullit ñi ba ñuy xam di wax ci tasnifu naajul balaaxa boo ca demee dangay gis ñuy wax ni yàgg na ñuy wax ni àdduna bi dina mujj asbaxatil aalamu xurfat euh, euh, xaryatun wa asbaxatil xaryatu xurfatun ñu ni àdduna bépp dana mujj nekk benn dëkk ba yàgg ñu ni dëkk yëpp dëkk boobu yëpp dana mujj nekk benn salle kenn xamul lu ñu doon wax booba internet bi ngay teg ci sa salle àdduna bépp ñu jox la ko léegi bu yàgg la ko la ko lislaam xamoon bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu toog ba nga ni tubaab yi indi ko tubaab yi dañ ko matérialiser rek mais xam gi ba annoncé ko lislaam a ko xam ab yoo ngay gis ak bato yeeg yëpp yonent bi moo yàgg alxuraan moo ñu wax rek ni defal naa leen ci biir suuf si fer weñ ak pétrole boo xam ni <coughs> dana leen jariñ bu baax mais dana leen lor bu baax fer yeeg permis yeeg pétrole bi yëpp ci lañ liggéey abion yi ak oto yi ak yépp ngay jël léegi avion wàcc Amérique léegi loolu bégalu la jëriñu la mais dangay jël avion mu fees dell jóg rek ba ca ko rek daanu ñaata dee nangam kon lu ci alxuraan waxam rek noonu la kon l'islam moomu yónent bi jóge nag Makka ñëw ma diinatul Madinatul Munawara ca aj ga ba mu jeexee tuuti la fa toog ba muy génn màkk rek la feebar feebar bi di ko